asalaamaaleykum mbokk internet yu iyat e ñoo ngi leen di nuyu bu baax ñu ñëwaat fas yéene waxtaan ak yéen ci actualité nationale bi ak actualité internationale bi tey bëgg nañu waxtaan ci bëgg nañu waxtaan ci li nga xamante ni am na ci semaine bi ñu génn fële ca réewum Russie mooy ki nga xamante ni moom mooy jiite woon groupe militaire boobu di Wagner mooy Evgeny Prigojine mi nga xamante ni ñàkk na bakkanam bëgg nañu waxtaan tamit fii ci fii ci suñu réew muy Sénégal bëgg nañu wax ci média bu mel ni Sen TV ak ki nga xamante ni moom moo ko moom di président directeur général bi ak taxawaayam ci jamono bi ñu toll ak ñi nga xamante ni ay journaliste lañ ak ay chroniqueur ci média boobule bëgg naa ñu wax tamit ci ñi nga xamante ni ay soi-disant guide religieux lañu taxaw créer seen ay mouvement lépp xam nañu ko ngir wut ci xaalis ci gouvernement bi nga xamante ni moom moo fi nekk ñu daanelee ci situation bi nga xamante ni moom moo xew ci réewum Niger fi ñuy commencé mooy li nga xamante ni am na ci réewum Niger euh, réewum Russie ci semaine bi ñu génn mooy ñàkk gi nga xamante ni njiitu groupe paramilitaire boobu di Wagner ñàkk na ko bakkanam muy Evgeny Prigojine ñëpp xam nañ ni Prigojine nit ku jege Vladimir Poutine la ndax bu ñu dellu siwaatee ndax ginnaaw chronique la ñuy def chronique bu ko wax dafa war a wuyoo turam muy chronologie des faits ñëpp xam nañ ni kooku ñàkk bakkanam ku jege woon Vladimir Poutine la mais ñi ni sax dañuy wax problème Prigojine ak euh, Poutine mais ñoom ñaar musuñu am musuñu am problème Prigojine ñi mu amal problème mooy ministre de la défense bu réewum Russie muy Sergei Shoigu ak chef d'état-major bu réewum Russie muy Valery Gerasimov ñooñu la Prigojine amal ay jafe-jafe yaakaar naa nëbbu ko ay yoon yoo xamante ni génn na def ay déclaration daanaka saaga def na leen ko muy ministre de la défense Sergei Shoigu ak ki nga xamante ni mooy chef d'état major bu réewum Russie di Valéry Grashkov réewum Russie nag dafa am loo xamante ni dafa am mooy dafa bëri ñoo xamante ni dañu amal dañu taxawal ay groupe paramilitaire foofu dafa bëri exemple tudd naa tey ministre de la défense bi nga xamante ni ñoom ñaar fi seen rivalité jugee mooy Prégojine ak euh, Valéry Grashkov ma Valeria sol Solgu seen rivalité fi mu jugee mooy moom Prégojine dafa am benn groupe paramilitaire muy Wagner kee nga xamante ne ni mooy Sergey Solgu dafa am moom tamit groupe paramilitaire bu tudd Patriote ñoom ñaar ñëpp ñi ngi woon ci xeex bi ginnaaw bi guerre bi tàmbali ci diggante Russie ak Ukraine ni ci Wagner nekkee woon ci terrain bi di xeex. noonu la ci groupe paramilitaire bi nga xamante ni ministre de la défense bi moom moo ko moom moo ko créé muy Sergey Shoigu te mu du patriote ñoom tamit nekkoon nañ fi di xeex mais ki nga xamante ni moom mooy euh, Prégojine bi mu nekkee Russie di xeex rawatina sax bi ñu demee bay bëgg a nangu ville bi nga xamante ni mooy Bakhmout bi ñu koy bëgg nangu ñoom dañoo manqué woon ay munitions. mu laaj ba sonn ay munitions pour Russie jox leen ko ci te ki te munitions yi ci ki muy jaar pour ki ko war a valider mooy ministre de la défense Sergei Solgu sol gu nag du ko du ko nangu def ndax groupe am bi bi nga xamante ne moom moo ko créé ak euh, groupe bi nga xamante ni moom la Prigozhin créé ñoom ay rival lañu kenn ku ne di nga gën a wane sa bopp que ni yow terrain bi. yow yaa ci gën a wane sa bopp looloo tax ginnaaw munition yooyu ñu doon laaj joxuñu leen ko ci la Prigojine génnoon def déclaration di leen attaqué daanaka ba saaga ministre de la défense bi Sergey Shoigu ci ginnaaw loolu ñu continuer di xeex ci mois de juin bi presque ci fin mois de juin bi ci fin mois de juin bi ñu attaqué ñoom seen ay base yoo xamante ni mu nekk moo nekkoon Ukraine base su Wagner yoo xamante ni mi ngi nekkoon Ukraine ñu attaqué ko. ginnaaw bi ñu attaqué base yooyu nag ñoom ci la ñu tourné ni dañuy dem Moscou ni ñu tuddee woon loolu sax mooy marche de la justice lañ ko tuddee woon nee nañ ñoom dañuy amal dañu bëgg amal justice ngir réparer injustice bi nga xamante ni dal na seen kaw mooy ñoom ñi ngi laaj ay munitions joxuñu leen ko waaye Sergei Shoigu ministre de la défense yónnee ñuy bombarder seen ay base yu nekk Ukraine. looloo taxoon ñu ñenn ñu tuddee ko tentative de coup d'état wala tentative de rébellion wala neneen nuñ ko tuddee woon loolu moo amoon loolu nag bi mu amee Vladimir Poutine génn def déclaration qualifié euh, Prégozine ni wax ne moom traître la jëfu traître la prégosine def te bu ñu delloo ginnaaw tamit ci atum 1998 Vladimir Poutine defoon na benn déclaration journaliste bi wax ko ne ko ndax moom dina baale mu ne moom dina daal dina baale mais sauf trahison trahison munu ko baale te bu ñu fàttali ko kon bi rébellion boobu amee wala tentative de coup d'état nu ñu ko mën a tuddee moom dafa qualifié woon Prégojine ni moom traître la te en 1998 nee woon na journaliste boobu moom dina baale de mais trahison moom moom mënu ko baale. kon ñëpp kon bu bu Prégozine deux mois après rébellion boobu faatoo ñëpp danañ joxoñ baaraam Poutine que ni li faat ki nga xamante ni moom moo jiitu woon Wagner loxoom génn ci li tax faatoom gi nag nara am lu bari lu mu soppi mooy juróom benn réew yu nekk ci Afrique yoo xamante ni groupe paramilitaire boobu ma nga fa bokk na ci réewum Mali bokk na ci réewum Centre Afrique bokku na ci Djibouti bokk na ci réewum Libye ak yeneen réew yoo xamante ne ci Afrique ñoom ña nga fa nekk fa li nga xamante ni moo am jafe-jafe mooy Wagner groupe privé la groupe privé la kon yaakaar naa état la doon jëflanteel bu demee ba yi nga xamante ni moo ko jitee woon ñàkk bakkanam force dina am ay conséquences ci accords yi nga xamante ni ñoom amoon nañ ko ak réew yi nga xamante ni teew nañu fa kon loolu mënu ci loolu mënu ci ñàkk rawatina moom mu faatu bras droit bi faatu kon mënul ñàkk ay conséquences ci réew yi nga xamante ni ñoom teewoon nañu fa ci Afrique ginnaaw bi nga xamante ni rawatina nag réew yi nga xamante ni coup d'état am na fa. ginnaaw bi nga xamante ni coup d'état am na fa dañu fa jëlee réewum France jële fa am na yoo xamante ni sax waa ONU yi fa nga xamante ni nekkoon nañ fa casque bule yi dañ leen fa jëlee ñoom tamit yaakaar naa ñu bëri dañu wékkoon seen yaakaar rawatina dëkk yi am coup d'état dañu wékkoon seen yaakaar ci groupe euh, paramilitaire boobu nga xamante ni moom mooy Wagner dañ ci wékkoon seen yaakaar ngir sécurité. am ci dëkk boobu insécurité bi nga xamante ne mi nga am seen dëkk ñu dàq ko kon bu ne groupe paramilitaire boobu chef bi faatu na numéro numéro numéro deux bi faatu na kon loolu mënul ñàkk ay conséquence ci taxawaay bi nga xamante ne ni Wagner amoon na ko ci dëkk yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réewum Afrique lii nag day gën a wane day gën a wane que Poutine moom amul kenn ku koy opposé wu te amul kenn ku may nangu opposé wu ko bis boo ko opposé wu li gën a sedd li gën a sedd ci yow mooy li dal Alexei ni moom moo lay dal mooy opposant boobu nga xamante ni jamono ji mi ngi ci kaso te fan yi weesu àtte nañ ko benn dañ ko tëj lu ëpp fukki ati kaso kon lu gën a ndaw boo opposé wu Poutine man nga ne lu gën a ndaw ci li la nar dal mooy li daal Alexei ni mooy ñu jàpp tëj ci kaso bi jugé la condamné la tëj la ay at yu bari ci kaso bi waaye lii nga xamante ne am na diggante ak Yevgeny Prigozhin yaakaar naa kenn xaaru ko woon ndax ñoom ñaar yàgg nañ te Poutine wax na ko ci déclaration bi nga xamante ni def na ko te ñoom tamit li pays yi di def allusion que ni di sous-entendre que wax ni Poutine moom moo faat Evgeny Prigozhin démb ñëpp gis nañ ni porte parole bu Kremlin génn na di muy Dmitri Peskov génn na di weddi loolu te ni képp koo xamante ni wax nga ni ñoom ñoo faat Poutine waxuloo wax joo xam ñoom ñoo faat boog euh, kii di Prigozhin képp koo xamante ni wax nga ne ñoom ñoo ko faat wax la joo xamante ni méngoowul ak dégg mais jusqu'à preuve du contraire pour nit yi génne wax ne laalewuñ faatu Prigojine ak li nga xamante ni defoon na ko ñaari weer ci ginnaaw loolu pour jusqu'à preuve du contraire pour ñu séparer leen du yomb benn yoon leneen li nga xamante ni bëgg nañu ci ñëw ginnaaw bala ñoo ñëw ci li nga xamante ni sax mooy actualité nationale bi danañ wax tuuti tamit beneen tamit ci actualité internationale ndax gisoon nañu Sénégal di candidaté ci ngir bëgg a dugg ci kuréel googu nga xamante ni moom mooy BRICS te juróomi réew yi nekkoon ci mooy euh, Brésil Russie Chine ak Inde ak Afrique du Sud kuréel googu nga xamante ni ñoom nekk nañ ci te seen seen PIB pourcentage pourcentage du PIB mondial BRICS boobule 2000 ñoom bi koy formé mi ngi tolloon ci huit pour cent à 2011 dix ans après ñoo ngi ci dix neuf virgule six pour cent à 2022 ñoo ngi ci vingt six pour cent pourcentage du PIB mondial kuréelu kuréel goo nga xamante ni moom mooy BRICS BRICS nag ñëpp boo ko déggee moom mooy daanaka. anti G7 la G7 occidentaux yi ñoom ñoo ko taxawal mais ñoom ñu taxawal BRICS ngir contrer leen kon ñëpp xam nañ ne jëm nañ kanam avant ñi ngi avancé bu baax ndax en deux mille en en deux mille un ci lañ nekkoon seen pourcentage mi ngi woon ci huit huit pour cent en deux mille onze ñu ngi ci dix neuf virgule six pour cent en deux mille vingt deux ñu ngi ci vingt six pour cent ñoom. BRICS ñi nga cinq pays cinq cinq pays yi nga xamante ni ñoom ñoo ci nekkoon avant ñu koy ubbil yeneen six pays ñu ngi doon ñu ngi doon représenté ci population mondiale bi quarante pour cent ci population mondiale bi mooy trois virgule deux milliards d'habitants ci dëkk cinq pays yi nga xamante ni ñoom ñoo ci nekkoon avant ñu koy ubbil yeneen six pays muy Russie di Chine di Inde di Afrique du Sud di Brésil ñoom ña ñoom nag. ñoom ñoo formé seen kuréel googule bi ñu ko formé ngir contrer occidentaux ginnaaw bi ñu taxawalee woon cinq 5 après mu mujjee nekk G7 Sénégal nekkoon na candidat pour dugg ci BRICS boobule mais Sénégal yow jamono ji ñuy liggéey ñoom lii xam nga ni liggéey moo ko waral ndax en deux mille deux mille un boo nekkoon pourcentage PIB mondial bi nga nekkoon BRICS bi ñu koy en deux mille un ñoom ñu nekkoon ci huit pour cent. deux mille 2011 19 virgule 6 pour cent deux mille vingt 2022 26 pour cent nga nekk ci lii liggéey liggéey moo ko waral yow nekkoo puissance économique nekkoo puissance militaire ne da nga bëgg a bokk BRICS ñi nga xamante ni dugal nañ leen ko Iran man nga ne puissance économique la puissance militaire la Arabie Saoudi ak Émirats Arabes Unis puissance économique lañ Égypte man nga ne fi mu nekk ci position bu stratégique man moo ko may mu dugg BRICS euh, Éthiopie fi mu nekk tamit position bu stratégique boobu moom moo ko may mu dugg BRICS Argentine ñëpp xam nañ moom mooy premier partenaire économique bu réewum Brésil te Brésil tamit ñëpp xam nañ am na doole ci BRICS bi kon réewum Sénégal bu nee day candidaté pour dugg BRICS da doon nax boppam ndax xam na ni du puissance économique du puissance militaire ngir mën a bokk ci BRICS jamono ji nga xamante ni nit ñi ñi ngi waxtaanee leneen lu gën a ñoŋal seen économie lu gën a ñoŋal seen yeneen activité yow yaa ngi nekk ci ay fait divers lu mat deux ans nga nekk ci ay fait fait divers mënoo tabax sa économie ba autosuffisance alimentaire mënoo ko am da ngay jéggaani soble feneen mu ñëw nga teg ko ci télévision nationale di ko bàkkoo di wax ni yow jàpp nga ne yow def nga exploit bu mag a mag kon yow buñ ne la woon da ngay intégré BRICS xam nga nigeria moo ëpp doole fu Sénégal te mënul intégré BRICS kon yow buñ ne la yow da mën nga ci intégré vraiment da ngay nax sa rek loolu buggoon nañ ko jox leneen li nga xamante ni wax nañ ko sànq mooy taxawaay bu wax nañ wax nañ ci keroog mais tey dinañ ci waxaat mooy taxawaay bu média bi nga xamante ni moom mooy Sen TV ak boroom télévision bi muy PDG président directeur général mooy Bougane Gueye Dany mu wax Bougane Gueye Dany président directeur général ak Bougane Gueye Dany homme politique tamit dañu gisoon en deux mille vingt deux avril deux mille vingt deux ci la France demoon élection présidentielle dafa am ku nekkoon ci biir candidat yi wax ku ñu doon tuddee Éric Zemmour Éric Zemmour chroniqueur la woon ci ay journal ay ay ay bu ci mel ni Figaro nekkoon na fa chroniqueur nekkoon na chroniqueur tamit ci RTL Éric Zemmour ñëpp xam nañ ni. cent Bolloré te mu am doole lool ñëpp xam nañ ko ci suñu réew yi te mu am ay médias yoo xamante ni moom moo leen moom médias yi Vincent Bolloré moom dañ doon defal propagande Éric Zemmour ñëpp xam nañ lool Éric Zemmour ñaata pour cent la am ci élection présidentielle yi sept pour cent la Éric Zemmour am même doon nañ jéem avant élection yi doon nañ manipuler ay sondage que ni Éric Zemmour devancé na Marine la Pen mais bi ñu demee ci élection. Éric Zemmour 7 pour cent la Marine Le Pen am 23 pour cent ci premier tour bi kon média ay nit dafa nekk di def propagande def propagande benn nit vraiment loolu nit ñi dañ ko weesu média boobu nag mooy Sen TV dañu nekkoon dañu nekkoon lu ma deux ans ñu toog di ko nettali benn fait divers chaque jour bu ñu defee débat Ousmane Sonko Adji Sarr Ousmane Sonko Adji Sarr ba nit ñi di leen wax naa yéen xanaa amoo leen leneen lu ngeen war a mën a débattre lu du Ousmane Sonko Adji Sarr ndax réew mi fi mu toll nit ñi naan immigration irrégulière bi mi ngi gën a takarnaase chômage des jeunes mi ngi gën a takarnaase abri provisoire yi mi ngi fi leneen ak problème inondation yi mi ngi fi waaye loolu yépp ñoom du ñu ci wax waaye aji Sarr Ousmane Sonko lay wax deux ans waaye pourtant ñoom liñ doon wax ci ay faits divers ñëpp xam nañ ni ay faits divers man bu may wax sama wax bugguma ci wax waaye ñoom ginnaaw dañ doon nettale ay faits divers am na beneen fait divers boo xamante ni génn na ci semaine bi ñu génn mooy ñëpp xam nañu ni chanteur boobu ñuy wax Wally Seck frère am da doon takk jabar ba muy takk ba muy takk jabar nag ndaw si mu takk ñoom ñoo def seeni révélation te ni Bougane moom moo ko jur te jureewu ko ci sëy jureewu ko ci sëy kon loolu ñi doon télévision bi taxaw lu ma deux ans ñu koy nettali ay faits divers mënoon nañu wax commenter tamit ci faits divers boobu leen démb dafa am débat buñ doon def ginnaaw bi nga xamante ni avocat di jaabul yooyu amal nañ conférence de presse wax ni li nga xamante ni am na fi li nga li li ñu toppee boog Ousmane Sonko état dafay constitution dafay constitué wu partie li li li ñu koy yàqal ne la dañ koy fayeeku ñoom ñu amal seen débat di kàcc naan li fi amoon du politik ay nangam moo fi am ay attentat moo fi amoon li fi amoon dafa wés politique ay fii senegal ban senegal la ñuy wax senegal gi nga xamante ni mars am na fi en 1963 décembre 1963 ñu ni presque am na lu lu ëpp 100 morts officiellement am na 40 morts. officiellement am na quarante mois Sénégal boobu lañu wax naan Pastef moo fi indi violence politique bañ naan li fi am diggante mars deux mille vingt et un ak du léegi ak léegi du politique léegi avocat di jaabul yooyu loolu ñuy wax mais xanaa buñ toppee Ousmane Sonko nga ne moo woote ba ay nit dee moo woote bañ yax xanaa dañuy topp Bamba Fall mi woote woon ay jeunes ñu taxaw ju buntu maire ba am ko ci ñàkk ba kanam xanaa loolu loi bi buñ ko fi tegee dana rétroactive ba topp Macky Sall mi nga xamante ni moo fi taxawoon naa dañuy déloger président de la république Abdoulaye Wade kon yaakaar naa ñi fi faatu du ay jaasi moo leen rey du ay paaka moo leen rey du ay xeer moo leen rey ay bal moo leen ay bal réel moo leen rey te yaakaar naa baara ba bi nga xamante ni mujjee naa ñàkk ba kanam te mu ñàkkee woon ba kanam suma assistance rek loolu gën ko firndeel ñi fi faatu 2021 ba léegi ay bal moo leen rey te ñi ñu ay bal xam nañ leen. léegi nervi yi nga xamante ni dugal nañ leen ci ay oto ñuy accompagner police loolu Ousmane Sonko lañ koy toppee nervi yi ñu dugal ci ay oto ñuy accompagner police depuis deux mille vingt ba deux mille vingt trois loolu Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo fay nervi yooyu moo leen génne léegi moom moo tax Ousmane Sonko lañ war a toppee loolu pour man loolu caaxaan wu suuf pour man bu tubaab di wax avocat di jaabul. nit ñooñu toogoon di def conférence de presse góor ñooñu ak jigéen ñooñu toogoon di def conférence de presse moo tax ñuy wax avocat yi jaabul kon Bougane bu jëlee ay chroniqueur yoo xamante ni seen niveau d'analyse dafa faible ñu toog ci ay plateau ay plateau de télévision loolu buñ ko waxee xay na mën nañ leen koo nangul ndax xëy na li ñu xam ñoom bëriwul bu ñu toogee naan li fi am xam nga ñu toog mënuñoo xam lan mooy pétition boo journaliste bu mel sëñ Saliou Guèye lu mot vingt minutes mu toog di leen expliquer lan mooy pétition ñu naan ay ñu ay état dafa répliquer xanaa état bala moo répliquer répliquer attaque day fay am mais pétition ñi ngi lay mooy loo xamante ni dañ lay ñaan nga naan état bi dafa répliquer xanaa réplique bala moo am attaque dina am ba pare nit koo xamante ne mënoo xam lan mooy pétition kooku yow mérité wul toog ci ab média naan dafay def chronique nit ñooñu nag la buggaan teg ci télévision bi. ñuy chargé Ousmane Sonko incohérence bi nit ñoo ñu àndal nag foo ko waaye takk wees na ko dañuy def propagande naan euh, Sonko moo yoroon drapeau résistance bi léegi ginnaaw mi ngi ci kaso bi léegi Bougane mooy yor drapeau résistance bi léegi boobaa nangu nañ ñu Sonko résistance la doon def waaye bu dee tug affaire bu dee thème bi moom Sonko kese la dugaluñ ci Bougane léegi Sonko boobu moom nitu fitna la waaye bu dee Sonko thème bi moom dañ naan Sonko Bougane léegi nitu jàmm la li ñuy def propagande la. te loolu pour man sénégalais yi dañu ko weesu sénégalais yi ku toog dañuy toog sax yenn saa ñu naan dañoo bëgg a yee sénégalais ma ne quelle ndax yow mi koy wax wóor na ne sénégalais yi ba ñu yeewoo yow yeewoo ko ba bay toog ci ay médias naan da ngay def chronique pour man lii buggaan géej daan di def may du ma may benn nit ndax ba mu duggee ci politique ba léegi média am ñu ngi koy def mais élection locale la def dem ci maire bu Mermoz Sacré-Cœur loolu ñëpp lañ ko fàtte. mais maire bu maire mu Sacré-Cœur Bougane Gueye Dany nekkoon na ci candidat mille voix amu ko cent soixante quinze voix la Bougane am Mame Gor Diazaka li mu am ci maire bu Pikine maire bu Rufisque score bu Mame Gor Diazaka am ci maire bu Rufisque mu ëpp score bu Bougane am ci maire bu mer mu Sacré-Cœur koo xamante ne yow mënoo am mille voix ci ay élection locale ci ay élection locale mënoo ci am mille voix nga bëgg ni yow da nga bëgg a nekk candidat ba pare li ñuy toog di wax naa Sonko dafa ànd ak système bi Bougane moom entre système bu dee Khalifa Sall système la Bamba Fall lan la Bamba Fall ak Khalifa Sall ñoo bokk benn école Bamba Fall alliéwul ak Bougane Daawur Ñaan Njaay mi nekkoon Pikine alliéwul ak Bougane waa ji sant Martin mu nekk Rufisque alliéwul ak Bougane ci élection locale yi kon bu ñu yàpp ni bëgg a amal ay propagande teg ko ci ay fenn yoo xamante ni yu leer naññ la Pastef nga bëgg ko def parti boo xamante ni moom moo fi indi violence politique fii ñu doon fi amal ay attentat à la voiture piégée fii ñu euh, manifester fi rey fi juróom benn policier fii ñu manifester fi rey fi lu mat quarante personnes fii ay nit manifester ci ay Casamance Casamance ay nit manifester fa en 1980 81 ñu boom fa ay nit ñu bëri ñu wax naan ay violence politique vraiment loolu ku koy wax naa fekk nga wala boo xamoo dara ci histoire politique bu réewum Sénégal li nga xamante ni nag moom la ñuy wax pour daaneel ji mooy situation bi nga xamante ni am na ci réewum Niger te démb réewum Niger jël dogal ni ambassadeur bu réewum France quarante huit heures lañ ko may ngir mu génn réew ma réewum France nag nit ñi dañ ko doon wax ne ko ñi wax ni la jéem a la ni ngay jëflante ak pays africain yi ni nga doon jëflante ak ñoom. indépendance ba léegi mënatoo koo jëflante ak ñoom ndax nag nit ko am xel rek danga nga war a xalaat ni nit kii ma doon noot nekkoon fi ci benn système bi coloni euh, esclavage colonisation nga bëgg cee amal néew colonisation loolu xel nangu ko sax nga ni man dinaa changer méthode yi ma leen doon nootee jëm leen a nootee ci yeneen méthode sax mais loolu yooyu yëpp du la ci fekk da nga bëgg a ni nga leen doon nootee ci jamono esclavage nga bëgg leen ku continuer di leen nootee lool ñi ko doon wax naan ko jéemalo a soppi sa ay relation yi nga xamante ni moom ngay amal ak pays yi nga xamante ni colonisé woon nga leen nga fas yéene seq ak ñoom ay partenariat yoo xam yu équilibré la ñooñ ñooy say xarit waaye ñi la doon wax naan la continuer di dominer pays yi ñooñu duñ say xarit ndax boo continuer di leen dominer li la dal Mali dal la Burkina Faso ay jii moo la dal Niger bi nga xamante ni kenn yaakaarut woon lu mel noonu dana dal réewum France ku yeewoon général de ni ko pays yi nga xamante ni France moo leen woon dàqee nañ fa ambassadeur bu réewum France général de Gaulle dëgg ndax jàppoon nañ loolu duñ fa mos a àgg réew yooyu mais dañ leen a topp di leen noot topp leen di leen noot di leen noot ba réew yooyu mujjee fépp te yaakaar naa li am Mali. moom la réew Niger wane ndax Mali moo njëkk def loolu dàq ambassadeur dàq ambassadeur bu réewum France ci réewam yaakaar naa ñi ko doon wax naan la amalal ñii ak ñoom partenariat yu équilibré ñooñu ñooy say xarit waaye képp koo xamante ni da la doon wax naan continuer di dominer pays yi mën nga leen a continuer di leen noot ay ay njiitu réew yu mel ni Macky Sall mën nañ la faa nekkal. lépp loo xamante ni bëgg nga ko ñu defal la ko waaye lépp loo xamante ni bëggoo ko du am ci réew yooyu la képp koo xamante ni daf doon gëmloo France loolu xamal ne France li mu nekkoon ci ay caaxaan la te balaa yàgg dara dina jeex te loolu moom jàpp naa ni leer na ci jamono ji ñu toll ci bëtu réewum France ndax nag dàq ambassadeur ci ab réew loolu du du ay caaxaan te damay ragal intervention militaire bi bëgg mu am avant mu koy am. fekk na moom ay soldaaram génn nañ génn nañ ca réew bu nga xamante ni moom mooy réewum Niger te jàpp naa ne li tax CEDEAO di hésité ba di hésité ba léegi ndax nag xam nga comédie mënu lu weesu nga toog di def ay déclaration naan dafay def intervention militaire palais bu réewum Niger ci biir camp militaire lañ ko da wax loolu yaakaar naa ñoom ñoo ko gën a xam bala nga àgg ci ñoom bala nga bala nga àgg si yaakaar naa général Tiani wala nga bala nga àgg si Mohamed Bazoum daan da nga koy installé waat da dugg ci camp militaire soldaar ya fa nekk nga jàmmaarloo ñoom gañe leen waxuma guerre bi nga nar a am ak soldaar yi de mais guérilla urbaine moo nar a am ndax civil yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk nekk ay pro putschiste da nga jàkkaarloo ak ñoom ba pare doog a jàkkaarloo ak militaires yi nga xamante ni ñoom ñoo récupérer pouvoir waaye da nga jàkkaarloo tamit ak réew yi nga xamante ni pare nañu ngir défendre réewum Niger bu attaque amee te ñëpp ñu ngi fan yee passé réewum Algérie wax nañ ko kani France may ñu leen benn yoon ñu aw ci jaww ji ndax nit tamit mën na laa ni la mën a tëjal ay frontière terrestre noonu la la mën a tëjalee ay frontière aérienne am noonu la ko mën a tëjalee looloo tax ñu ne mayuñu réewum France ñoom Algérie mu romb ak avion ci seen jaww ji bu dee intervention militaire dafa nar am foofu la ci réewum Niger kon yaakaar naa te ñëpp xam ne histoire Algérie ak France yaakaar naa France mën na yëpp Sénégal de yëpp euh, yëpp réewum Côte d'Ivoire mais réewum Algérie yebuñ ko ndax réewum Algérie kenn saraxu ko indépendance dafa xeex ngir jot indépendance am yaakaar naa réew yi nga xamante ni France daf leen di laalee bant bu gudd ci Afrique Algérie la ak Rwanda te Algérie sax la gën a métti ci moom ndax Algérie dañu la xeex dañoo xeex ak ñoom ba duma leen génne leen fa comme ni ak comme ni ko Bissau Guinée yi amale woon ak portugais bi ñu leen coloniser dañ leen xeex xeex ak ñoom duma leen génne leen foofu kon jàpp naa ne France boo amee réew bu mu yëpp réewum Algérie bokku ci te yaakaar naa liñ ko wax leer na looloo tax nga fan yii yëpp daanaka semaine bi moom intervention militaire jëmatul kaw leneen lañ wax sanction économique la ñu xool dañ ko fi dañ ko maintenir wala dañ ko teggi mais yaakaar naa sax euh, intervention militaire moom ñi ngi koy tàmbalee ñi ñoom ñi ngi ciy tàmbalee dellu ginnaaw ci seen i kàddu ndax fësatul bu baax ci seen i kàddu ci semaine yi nga xamante ni moom la ñu génn. ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous ba beneen